dani senegal tv dal ola ena mbokh yata bunjal badango mi bada dakati kum seko birane karnjole duma fecce dina yangal po jurja djin sa mbokh yata bunjal mbokh yata bunjal senegal TV nek dama ko tudde teranga teranga dani ni journas gor teranga mani sourtas gor ndax teranga su souranas gor fun la tele do to fa beuga dem senegal TV nak mom yalla dogal na ñun xam nan ko bu yak diko setan bu yak yalla dogal tay mu joge ci Dakar ànd ak léppam soxlowul dara ci ñun ànd ak ñun ba ci suñu àll dug ci tool ba pare seet suñ jafe-jafe lépp lu nekk mu ànd ak ñun man dem naa fu ne waaye gisaguma kenn def ko télé bu ne jéem naa loxoti sama jëm waaye bu dul Sénégal TV mi duma ko may kenn maa la hmm. faa la koy fan tey baa ne nuq ni indret cin foore hmm. danga dee ni loolu duma ci nekk di ci waxaat leneen hmm. naar yi nekkaan fale ca euh, naag bi ma demee di leen ko wax dan man ne xaaral ñu jox la ci benn موني لا تنمجي لا تغلي سنغال تي في سنغال تي في تزينا سنغال تي في ما عنده مشكله سنغال تي في تجي لا نجانا باي سما مي وان ديبارتمون تو وان راسون دو تشيس تنقول لو كامل الناس تشفتو لا بستان بستان مو بودغي بستان نيون نيغي وخ تول تول بي نك امول فن فدو نجانا كان ماكو عندي ليتنا كلنا لنا رجال نغوم رجال نغوم عندك موم اوسينو عندك لا إله إلا بيغا خامني موم تبارك الله لما في وقت مفريكا مو دل عندك كيغا خامتيني موي سيني بار العالمين مو باخ لول با ملني باخو باخو ني نو باخ تي باخو وسر موي باخ خي جيم با خيت بون يالا دوغال نا سينغال تي فيتام amna kuni wak ousmane saw double sera 50 mi ngi dekk fi sama wolereel mu ni joni kala nga ji da yawti mo bind de may may lire journal sunna Senegal tv mun jioni kala ko salmin ma wayri mam pulla ko wi wan wona jawdi ko mata jeri ko mata wala sa ngat ko do rawan hersat ay way usman liga bindinege dama Musa saw dengalima mun joni non legi nak kala ko jiiɗa yawti lu ñaw demna lu nuyo ma wayri mam lu nuyo na comme nak nuyol passé gul te nek ci mom mu ko sun jëm def ko ci écran bi tv dinañ wakante ak mom teng musa mo bindi lolde moni joon noon sa mbewa gatti koɗo rawan hersat bu bayi matte gal ha jina